nee gannaaw bu ma la nuyoo ziyaare la nuyu waa kër gi ziyaar leen nee ki nga xam ni mooy sabab bi mooy ab Ablaye Samb nekk coordonnateur ci direction trésor nee li nga xam ni nag mën noo jàpp ni mooy caractériser président Macky Sall mooy daal ku am yërmande la ci askan wi te loolu it lu am solo la nee xañ nga liñ fi dajeeg Anta Sarr ne benn la ci misaal yi mooy programme boo xam ne amoon na ko bi muy bëgg réew mi ne réew mi tey am nañu sonn fokk ñu dimbali leen ndax booy tabax ne du tey war nga nga dund nag ca bis ba looloo indi programme bi Anta Sarr yore jamono jooju dafa waxoon ni fii ak 2016 jëm 2017 fexe ba deux cent cinquante mille familles. ne dana fexe ba deux cent cinquante mille familles. am ay subventions. am ay subventions. muy ay bourses loola kat mooy la ma waxante woon ak sénégalais yi. waaye ci yërmandeem. waaye nag ci bi 2017 di jot. ne di jot. fekk fekk nañu àgg ci trois cent mille familles. moom la ñu def 2017. moom la ñu def 2017. moom la def 2018. moom la ñu def bi ñu génnee léegi maa ngi wax ak Soxna Anta. pour ñu waxtaan ak imaam ratib bi bi may waxtaan ma am lu ma ko doon laaj di ko laaj fu mu toll mu ni ma mu ni ma trois cent mille familles yi loola moom kat def nañ ko ba pare ne loolu day wane président ni mu amee yërmande ci askan wi muy 30 milliards ci xaalis muy fanweeri milliards ne xañ na soxna Anta mën naa wax chiffre bi ñu toll ak nombre de familles yi mu concerné te loolu benn la ci programme chef de l'État ne bu bii matee trente milliards na la DER bi mu mujjee def ne génn ci trente milliards ne dëgg la réew mi am na yeneen soxla waaye loolu dañ ko génne mu delluwaat ci askan wi directement ñii dañoo néew doole lii di ay xale ñii di ay jigéen noonu la ñu concentré mbir mi ne bu yàlla bindee noonu la kilifa mu am yéene yu mel noonu ci réew mi nee bu ñu ñëwee ba fii ci sa kanam kay sunu kilifa baax na ñu fàttali ko.